waxal naka sudul noonu ay fenni tooy xepp ma bëgg a toog sama kër déedéet damay dem leeral dëkk arrangé wu leen nag mais léegi rek ñu daal di leeral ah waaw lu xewoon wal fajri yéen ñëpp yéen a ngi doon seetaan émission yi ci télé bi ak seen Facebook ak seen YouTube donc yàlla dogal na ni démb si guddi lañ ma woo ñu ne ma dañ ma bëggoon invité tey ci seen émission plateau bu tudd balance dañuy wax si affaire justice ak affaire yooyu bon man wala sama avocat ma ne avocat bi de mënu ma ko wax pour mu ñëwee Walf parce que xaw ma temps am quoi donc mais man du ma mën a ñëw tamit parce que lii laa si gisoon ñëw wal Fadjri du ñu bëgg parce que man xam naa kuy kali xam naa it ñan ñooy waa wal Fadjri xam naa ne bëgguñu génnee dëgg ñoom boo ñëwee toog di génne ay fen ak lu yàq Sénégal oh, dañuy kontaan mais boo ñëwee di wax dëgg moom du ñu bëgg mais yàlla dogal na ni gis ngeen sànq def naa live pare naa live bi toog ñun ñëpp ñuy seetaan wal fajiri gis avocat xale bu jigéen bi toog foofu di wax silence pap téléphone ma war dum silence s'il euh, le plaît les réseaux mel teng teng mo gasta war dum silence ton s'il te plaît alors comme déconcentré ko ñun ñëpp ñu gis avocat xale bu jigéen bi toog foofu di jaxase di wax lu dul dëgg rôlam la nag rôlam la mais bu ma ko bàyyi woon mu toog foofu di wax te dégguñu version Kaliphone en direct sénégalais yi déggutoon yépp mën nañu déglu version dëggal version te ñépp xam nañ ne avocat di nga rey nit ba mu leer lañu yaa rey nit nga jël avocat avocat bi ñëw taxaw ne kii reyul nit ñu ñëpp xam nañ loolu ci avocat du ñëpp nag du ñëpp mais ñun ñëpp gis nañu avocat nga ñëw agressé nit jam ko paaka ba mu sedd ñëpp def témoin que kii yaa ko jam paaka mu toog ci télé bi ne jamul paaka gis nañu loolu moo tax avocat bi ba mu toogee wal fajri di sos sos bu mu njëkk sos moom fekkeewul mbiri fekkeewul mbiri kon mënu fa wax lu leer mënul moom dafay déglu version client te client lu ko arrangé lay wax mooy lan luy sosal Kaliphone luy yàq deru Kaliphone léegi avocat bi dégg ngeen ko mu ni Kali ba mu dugalee sama client moo ko yóbbu mais si yoon bi la commencé ko bas xale bu jigéen bi ne nekkuma si ñu xulo Kali jékki-jékki dem ville mer jékki-jékki commencé waat ñu xuloo waat mais xanaa booy yóbbu nit di ko kobos eggagu leen almadi ngeen demagum ville xanaa balaa ngeen di egg di ko ne may ma mu wàcc ma jël taxi ñibbi sama kër même bu ma vériyo woon porte yi ba ñu eggee ville maag moom de ca Novotel ñoo wàccandoo foofu am na sécurité mooy agent de sécurité Novotel yi xanaa ñooñu dinal ma booleek ñoom deetawaay xale bu jigéen bi mu ngi yoroon téléphone am di sinap mu naan gars yi damaa tooy dama taw te di ko def historiam ak sinapam xanaa dina bind message seen waa kër ne am na violeur bu nekk sama biir oto wool leen ma police amoon na possibilité yooyu yëpp mais wax lu dul dëgg moo tax ma toog fii gis ko ma woowal fajiri bind leen ne est-ce que mën naa participer par téléphone balaa ma doon dem par téléphone laa bëggoon participer